bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo baaxoo di topp euh, comité bi nga xamante ne bi ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu séntu weer wi fii ci dëkk bu mag bii di Touba ci jumaa ju mag ji nga xam ne moo nekk ci dëkkub Seexuna Ahmadul Xadim ci njiitul sëriñ Mudu Maamun soo mu feggoo ak sëriñ Abdou Diop imam waaye ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci taxawaay yi nga xam ne am nañ ko ci lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu weer wi waaye ni ñu ko lëkkaloo rek ak sëriñ Basiru Mbàkke mu sëriñ Abdul Xudus nekk ca Daarul Moxti dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon waaye ñu lëkkaloo itam ak Serigne Modou Mbacké si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif général des mourides yi ne ci biir réew mi ak bitim réew waaye di lëkkaloo itam ak kuréel sant weer bi nekk Italie waaye di jokkoo itam ak waa commission ba nekk Dakar ci njiitul imam Diène ak imam Ndiaye ak imam Sakho saa yu weer wi amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dañeen toog fii ci buntu sow bi jàkkaarloog kër tëli El Hadj Babacar Kébé Ndiouga àndandoo di ko séentu lépp luñ ci xam nag daañ leen ko jottali ginnaaw bu ñu sëlmalee gee doon nañ ko séntu nag bi ñu sëlmalee ga ba noppi nag jokkoo nañ ak kër Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne tubaa ñu bàyyee kàddu gi ab Abdou Diop imam mu jotali leen digal la nga xam ne moo fa jot a bàyyi ko. Uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni ko Serigne Fallou Galas si la waxee rek. ni ko baaxoo def def noon ko muy ñaar ak fan juróom-ñeent ci weer wu ne Serigne bi dana nu yabal ci jumaa ji ngir nu wax nañu séentu weer te loo ci waaye lu ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko bu ñu ko defee ba noppi ne dañuy toog ci sow bi di séentu ak di taatan xibaar yi ci gox yi biñ ko defee nag ba gee jot yàlla dogal na déggun fenn foo wax ne gis nañ ko booba lañ daal di jokkoo ak kër sëñ bi Cheikh Mamadou Mountakha léegi yëgal ko ko mu ne kon bu loolu doy na mën ngeen a yëgle ne kon weer wi feeñul kon nag ñu du leen xam ne weer wi feeñut doon nañ ko séentu tey jii ci ajjuma ji waaye feeñut kon suba ci gaaw bi mooy mottali weer wi kon mooy mottali weeru màggal gi kon na ko ñëpp xam-xam na léegi weer wi daal feeñut waaw kon dimanche nag ñu xam ne mooy benn fan benn fanu gàmmu wi na ko ñëpp xam te kon ñu euh, ñaan Sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te tey ñaan ñi ñu jàppale ñëpp ñu yàgg fi war <coughs> waa rajo yi fi dikk din fi fekk si ak waa Muxaddamatul Xidma ñu leen ñaanal ak dolli ko ak yokk dara yi Sëriñ Tuuba jërëjëf kon mbokk yi ñu xam ne weer wi feeñul fanweeri fan lay doon dimanche mooy doon benn fan incha allahu rabbi kon àllarba moo war a doon bisub gàmmu incha allahu rabbi ñu ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha sun borom yàggal ko fi dolli ak wéram waaye di ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi àndandoo ci commission seentu weer wi yal na leen yàlla may bët yu leer nañ ak nopp yu mën a dégg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa